politique mu ngi wax ne Sénégal ñu ngi seet jaari sow ba léegi ñu ne nag njàqare mu ngi fi bëgg am si réeru jaari sow moom nga xamante ne moo doonoon meilleur élève tijee ñu ngi wax daa am deux cent cinquante millions yu réer chambre de commerce ñu war ubbi benn audit observateur bu ñëwaatee si réeru jaari saw ñu ngi naan du lépp daal lañ ci mën a wax populaire ci xëtam bu njëkk Seydou Gueye lañ ci gis bu porte parole gouvernement bi mu ne Sénégal toog ci nguur rek euh, bañ fee jug loolu kenn waru kaa mënuñu koo xalaat sax waaw bu ñëwee seen café actu bu 11 janvier 2021 docteur Mamadou Diarabey bu directeur bu SAMI national mu ngi laan cas grave yi ñu ngi augmenté cas grave yi ñu ngi augmenté 300 cas graves dans les hôpitaux. kon daal si foofu noonu docteur Mamadou Diarra Bèye mu ngi ñaawlu situation coronavirus bi nga xamante ne cas communautaire yi mu ngi augmenté wu situation bi daal mu ngi gën a mu gën a metti waaw mu ngi wax si augmentation cas grave yi ak euh, réanimation yi ak nombre de lits ak situation bi daal mu ngi gën di mu ngi gën di yokk daal mu ngi gën di yokk te situation économique situation plateau sanitaire bu Sénégal demewul noonu ba nga xamante ne mën na jël tant de malade coronavirus yi te tamit am na yeneen feebar yoo xamante ne yu am la yu dul coronavirus dañoo war a faju aussi si ñaareelu xaaj bi ngi wax ne Omar Bun Khattab Diop mooy patron bi nga xamante ne moom moo remplacé Moussa Diop fële ca Dakar dem dikk mu ngi wax malversation financière yi nga xamante ne moom la fa Moussa Diop def ak yàq gi mu fa yàq ak employé fictif yi nga xamante ne jëloon na fa jëloon na fa bu si ñetteelu xaaju xibaar bi ñu ngi yoonal wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo violé état d'urgence bi quarante personnes yoo xamante ne arrêté nañ leen boo xamante lañ doon def sympathie fële sa almadi wa liñ ci nemmeeku ay doom ay domu borom daraja la don doon ay doomu ay diplomate sàngara ci bari woon na fa trop musique yooyu bari na mu doon 40 personnes yoo xamante ne déféré nañ leen au parquet devant le procureur waaw bu ñëwee si ñeenteel xaaji xibaar bi ñu ngi wax ci weekend bi nga xamante ne moo doon weekend record 328 cas 13 décès moom la ñu enregistré samedi mu doon situation bu xaw a doy docteur mamadou ndiaye moo ko doon xamale fële sa sud fm bañ ko fa invité woon sa bu ñëwee si juróomeelu parti xibaar bi ñu ngi wax si dam Diop dafa def benn arrêté mu ne daal nañu wàññi nombre personnel bi nga xamante ne ñoo doon ñëw di liggéey se ñu gën a privilégié télétravail bi waaw bu ñëwee ci juróom-benneelu partie xibaar bi ak international les géants de la techno Amazon ak Apple ñoo ne ont décidé de couper les ponts avec les réseaux sociaux mooy maanaam ca la fa amoon ca fële ca Capitole ak euh, Donald Trump waaw bu ñëwee ñu ne PSG plus de peur que de mal Gana Gueye sa match bi amoon samdi contre Brest dafa génnoon mais bi ñu dégloo entraîneur Mauricio Pochettino daf ne daf daal méttitu biir moo ko sonaloon moo taxoon mu génn. waaw ñu ngi wax Hubert euh, Auriol dafa décédé dimanche bi à l'âge de soixante huit ans benn euh, waaw bu ñëwee ci journal record ci xëtam bu njëkk ñu ngi fa gis euh, photo Boulaye Dia ak Kylian Mbappé ñu ngi wax euh, Boulaye Dia Toas Mbappé Toas Mbappé waaw bu ñëwee journal suñu dañoo invité woon VIP yi nga xamante ne ñoo yor làmb yi ñu ngi wax ci huis clos bi droit télé pour euh, lu mën a dekkali waat làmb ji ñëwee journal source xëtam bu njëkk mu ngi wane Mamadou Ndiaye directeur de la prévention mu ngi wax ci vaccin contre le coronavirus. waaw bu ñëwee si journal l'enquête ñu ngi naan FBI sur les traces du DG Chambra. waaw bu ñëwee si journal Le Stade ñu ngi wane ci xëtam bu njëkk Boulaye Dia doomu sénégalais bi nekk euh, Reims ci weekend bi dafa def doublé. bunye ñëwee si Sud Quotidien mu ngi wax ci plénière bi war am tay ci lundi bi ci assemblée nationale ci mbirum état de siège beeg état d'urgence bi ñuy wax ne Macky Sall accélère l'assemblée waaw bu ñëwee foofu si journal libération si xëtam bu njëkk muy wax ay transfert de fonds yoo ay doon amal si diggante Dakar ak Beyrouth waaw bu ñu ñëwee si journal réew mi si xëtam bu njëkk muy wax ci tey plénière bi war a am assemblée nationale ci état d'urgence beek état de chaise bi waaye bu ñu ñëwee ci journal Le Quotidien mu ngi wax saturation des service d'urgence mu doon loo xamante ne daal lu yéeme la ci wàllum coronavirus bi bu ñëwee ci journal euh, direct news xëtam bu njëkk mu ngi wax ndax est-ce que couvre-feu bi mën na atténuer propagation virus bi Euh, bu ñëwé ci journal Walf Quotidien mu ngi wax ci suppression suppression ville ñu gis ci xëtam bu jëk Macky Sall ci image Macky Sall Aminte Mbengue Ndiaye bu PS. Bon pomeriggio. Questa è la notizia di oggi in Senegal. Coronavirus, aumento dei casi gravi e dei decesi. L'allarme del dottor Mamadou Diarabé, direttore della SAMU. La situazione è difficile, sì sono. interessante casi gravi negli ospedali. De Giambalaggio contro De Giambalaggio, messo alle strette e accusato dal nuovo CEO di Dakar Demdi. Signore Musa Diop promette una proposta documentata. Violazione dello stato di emergenza. 40 persone arrestate in una festa in piscina ad Almat. Record de 328 nouveaux cas et 13 décédés. registrati sabato. Et graves grave et preoccupante secondo il dottore Mudunjai. à alla diffusion del coronavirus. La coraggiosa décision del ministro Dambio. L'épidémie di Covid-19 sta accelerando con 20.000 morti in più Dominica, in Belgio e 40.000 in Germania. Pechino, appena un anno fa, l'11 gennaio 2020, dalla prima morte di Covid-19, una uomo che faceva la spesa in un mercato, in un mercato di Rua. Paris Saint-Germain, più paura ke no père ganda en une pessime condition ni e eh, sabato contre brescia Uber Orio, légende de Dakar, est morto. Uber Orio est morto questa dominica 10 gennaio uh, all'età de 68 eh, ans.